kilifteefu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbàkke xalifa Cheikh Moustapha al ndigalul sëriñ Moustapha Mbàkke ibnu Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke Mbàkke ibnu sëriñ Xalil yu ànd ak ngërëm ak ñaan mi ngi leen di yëgal ne jëlee nañu ndigal ci sëriñ Moustapha Mbàkke ibnu Cheikh Sidi Muxtaar jëwriñu Cheikh Mamadul Lamine dañoo fas yéene Mbàkke tàllal nañu loxob jaayante ku ñu tuddee Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke mbaa ñu tuddee la ku ñu ko tuddee yi satoo njabootu Cheikh Mamadou Lamine turandooyu doomi Cheikh yi Serigne Touba yi ak taalibe ak soppe yi ku ñu ci tuddee Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ci réew mi ak bitim réew ñu ngi lay woo bëgg nga ñëw jokk ci mbooloo mi nu ànd liggéeyal Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké saa yu mbooloo mi yembee nag ab fédération lay doon boo am ay bànqaas koo xam ne nag bëgg naa bokk ci mbooloo mi mbaa di ca sakku ay leeral jëwriñ ji saytu liggéeyu mbooloo mi Serigne Bara Mbacké 77 228 ngërëm saadix ya jaayante woon Mbàkke a amee ndam Cheikh Mouhamadou Lamine moo feeñ fii jumaa ji ne tey di kër sëriñ Bamba lee dig may te wax ko du jey sëñ Baara donn na sëñ Tuubaa ci jagle di fal di fal li tey faje ajoy sampi bër di ko ful sëñ Baara taalibe gaak sañ-sañ ba ñëpp a ko xam cëram ba yàqul ca diineeg taalibeem du xajam la qualité fait la différence